parce que yow fu mu yoroon keroog fu mu daje maag moom ci télévision bi ni ka ala ñu jox doomu la yore mi ngi takk ci xale bi ay tiir arrêté la doomu nga ci yemul may leen ñu ko arrêté la arrêté la li nga arrêté ñu ñu arrêté sa su leen ñu ko tuuti rek distance jox nañ ko faram may leen ñu ko fa la ko mu fees nekk ci da ngay jàpp ngay jàng ay kër yi waaw day mu waaye ay butéel la tous yàlla sunu borom sutural dañuy liggéey de dañuy liggéey ñi gaa ngi noonu ñu boot ñi gaa ngi noonu ñu boot Saint-Pierre la l'adversaire de Reug Reug ndeysaan doomu waaye doomu Ceneba mi ngi noonu dañ koo boot nañ ko boot ci buntu bi ci buntu bi lañ ko bootee mais boot bi yàgg na mais ki ko boot boot bi yàgg na poids lourd nga boot Mbaye Tine ki nga boot ndeysaan boof na la ndeysaan doomu ndeyam la xaritam la léppam la mbaytin ku ne mbaytin mbay guy gi ku ne mbaytin ne guy gi ne mbay guy gi ku ne guy gi ne mbaytin ku ne mbaytin ne guy gi mbay ak guy gi lépp écurie Mor la waaw décision ferme laa gis ci guy gi waaw décision ferme laa gis ci guy gi merci beaucoup à la sécurité sécurité baa ngi xool may leen ko bu jàll saaku yaa ngi dugg guy gi ak koppateem guy gi ak koppati bi koppati bu weex très décidé très décidé saraxe waat beneen ginaar saraxe na benn bu weex saraxe na ginaar bu xonq cuur saraxe na ginaar mi ngi saraxe waat ak lan guro lay saraxe joxe na guro joxe na guro mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ñi ngi fi tey ci stade arène nationale muy arènu làmb ji nañ ko gën fonkaat xale yi nañ gën a fonkaat làmb ji di gën a wane le bon exemple tey bés bu mag la ah, euh, Sénégal Entertainment maa aussi c'est merci beaucoup pour la collaboration et félicitations pour l'organisation guy gi la ak Reug Reug le combat choc le combat de l'année combat bi nga xam ne mën na relancer waat làmb ji déglu leen ma bu baax combat boo xam ne mën na relancer waat làmb ji waaw parce que dafay neex am na ambiance ñaar ñëpp ay mbër lañu mais nag pronostic moom laay bañ a dégg léegi damay commencer ci Albouri man ak Ablaye ñoo fi nekk mooy filmer mooy jël affaire yeeg xam nga ci mbir cambar yeeg ay cumbur càmbar yeeg lépp ci biir kon ñu dem xool Albouri xool coulisses jéem a jël ay moccaat xam nga lu ma la ak ñeex ñu ñëw ci làmb ji allah maaleykum salaam. yaay doomu Albu. waaw man la dal boon amul dara. non da ngay wax loolu neex rek. du dara. champion la bëri rek lay def. du dara. si kanam ngeen di xam lan la. Albu de da nga def. alaaji ba magat lekk rek nga fi nekk lekk rek lekk rek damaa laal ci Madior Saala Bigue. da ngaa laal. damaa laal ci sëtu sa Madior Saala Bigue. Ah, ba pare looy nekk. dégg nga man damaa laal ci Madior Salé Bigué su lekkut rek ma ngay naan parce que yow fi ngay waxee man déggee ma foofu ma ne damaa laal ci Madior Salé Bigué sama maam. léegi sàq bi ba mu jeex. su lekkul ma ngay naan waaw léegi sàq bi ba mu grand boo koy wàññee nii rek tax na ngay <laughs> alhamdulilah. Kopé nag. doxal général. saltige ma fii waxal ak waaw Ba maa lay sa Kopé bi nga waaw moom nee na la daal ci maanaam maa joor saala bi moom moom bu lekkul rek ma ngay naan. mi ngi añ mi bu wér a wér a wér. ay lekk banaan. noonu la demee nag. di noos. est xam nga ne yow Sénégal léegi ñoo la bëgg àdduna sax ñoo la bëgg. waaw loolu la yàlla def ñu pare nañ fi war a pare ànd ak waa écrit sa ñaambu ñëw jël si sunu ndam yàlla na yàlla mottali. ngay bëreel dafa bëri technique. maa ko technique. moo la nga ne yaa ko bu li ci kanam rawuli bët dina mel ne Alboury Samb Lawbe. léegi di nga xeex nee naa la dina mel ne Alboury Samb Lawbe. Alboury Samb Lawbe nan la demee dikkal ci këllu të kullu galax ni ko gafaka ah, fanaan ci xale jigéen ñi. séddoo puutur mi naan ci puux mi dama ne la eh. xale yu jigéen bokk ci nag. dama ne la. yaa ne woon na nga vierge nga naan fanaan si xale yu jigéen. wax la dégg na laaj. waaw foofu nga toll yow mais ca kaw laa wax dama fekk ca kaw ñu ne élément eh, taalanu duñ duñ dañuy tënk rek. léegi moo xoolal. kan. ah li si kanam raw li dara xewul Youssou wayul waali tëggul al bu nañ toog seetaan rek. bu combat bi jeexee nga ñëw waxtaane ko lu ma waxoon naa ca bu soobee yàlla waaw. naka yite. yi mu ngi nii. yow daa mel sa yaram bi dafa tayal de. sooy da ngaa tayal de. waaw yaram bi moo waye di rek. yaram bi yaram bee waye di. pour man da lekk ba suur quoi. waaw lekk ah. nga lekk bëriwul baax na. Eh, yow nee na nga wuyu. waaw a ngi noonu jox nañ ko cumikaay bi dafay dem toj ko ci biir daal di génn. ndaal la yor le champion de Thiaroye mi ngi noonu di dem waaye il pète la forme macha liggéey na. ngay dem ci beneen wet ga papa nga voilà yow suma papa nga man ma yàq lamb waaye lii su ko defee dafay mel ni dama naan ñun bu dañoo bëgg guy gi daanu wala dañ koy sot loolu dama lay wax rek yow suma papa nga c'est wax nii waaw ma laaj bi ngay dugg ci lamb ji dafa mel ni da ngaa xabtal non non non xabtalu ma père non non non non ba li nga wax non léegi rees na li ma xabtal yaa ma ko jox yaa ma ko jox xanaa yow yaa ma ko jox non suma papa guy gi suma rakk la waaw léegi nii laa ci mën a mel dama ciy ñëpp bëre le le combat spécial ñaar ñii dañoo neex sànq jo technique maa ngi wax ak moom ma ne ko sa yaram bi dafa mel dafa xaw a nagam mu neex ma damaa wayadi rek yaram mu wayadi rek Alboury moom maa ngi dem ci moom mu may wax ay wax yoo xamante ni man sama niveau tollul foofu ñaari bër yu neex waaye dañuy bëre nag ñaari mbër yu neex waaye dañuy bëre mais technique moom moo dàq ñëpp géotechnique rek moo dàq ñëpp xool ko day dox mel ni day dox mel ni ku bagul dox <laughs> Pape loolu mooy waxi lan day dox mel ni ku bagul wax ku bëggul dox boog ndeysaan géotechnique mi ngi nele sama séeréer bi ak a ñuul géotechnique ñuul nga de alburee ngi jokki jokki mook suñu ko bee caméraman moo sol mbaxana bu xonk bi jaw fara frère la ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay arbitre baa ngi wax ma ñoom Malick mi ngi wax ak ñoom Alboury dem na ci coacham eh, guy gi tamit mobilisé na waa Géejawaay Caaroy tey fair play tey amateur yi kontaan nañu si yéen lii la ñu bëgg ñëpp toog seetaan calmement amul xuloo amul xeex amul mbéjante amul xoosante amul mattante lépp si jàmm ak salaam fair play l'ambiance merci beaucoup à Sénégal Entertainment Group Mao Cissé moo ko dirigé Mao Cissé merci pour la collaboration na jéeme door na géotechnique ba mënatul continuer door na ko ba mënatul continuer la décision médicale de l'arbitre Alboury ngi noonu Alboury am na ndam nee na tëggal leen ko tëggal leen ko tëggal leen ko tëggal leen ko ndeysaan fecc leen fecc leen puusal waaye kon ci ma ngay dem ma ngay dem tàccu leen dana dem tàccu leen dëggal leen ko tëggal leen ko mu def sabar awaay eh déggal loolu déggal loolu tëggal leen ko tëggal leen ko nga ni dagit samba cakin taki gi gi samban a ki gis a ramba cakin gi samba cax romba cax gin ci samba cax kiis rogit ki kiis taas mbat kiis gin kiis gin waaw waaw waaw ba nan la la Alboury waay dafa lu la neex Alboury bul jooyee Alboury bul jooyee bul jooyee Alboury alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin wala yaari tabaxan wal muur yaari xanaxan wal mu xiraani xanaxan alhamdulilah waaye loolu mooy la wax jërëjëf yàlla combat bi maa jëlee sama bopp newoon naa la kii TikTok moo ñu boole mais du lamb samay adversaire du ñuy xale bu ndaw préparé pare nee naa leen ne suqutulu sukar du booy yu benn ñaata. ak ku saam ñaata bokkuñu. yoon sax may xeex ak benn nit. Alboury ñu bëri sama maam sama maam. moom. waaw bu ma mu saana tooñ. waaw day bàyyi fukk. mu boole duma. waaw door bu su ku mu saana yàq ay waxam ndeysaan. ku mu saana waxam. di ko defaraat. wala mu kat sa xol. Alboury Alboury Alboury Alboury ñu bëri comédien yaari dafa xas. alburi yaari xas. waaye dégg nga loolu yow alburi yow lu muy wax. mu xiraani ku duxan. alburi yow foo jàngee loolu yow. Oustaz Ara Ara Oustaz Dia. Oustaz. Kalbamı kalabilir. faut l'ambiance ci kaw tribune bi ndeysaan ñoo assuré ambiance bi fii ci sat arène nationale ci combat bu mag bi waa caaro yo ngi noonu esprit fair play def ambiance lépp ci jàmm ak salaam ñu bëre combat bu neex ñëpp ñibbi ci jàmm woo na guy naa ko pare na pare na bu yàgg na guy waxtu bi dafa jot mais moom pareegul mi ngi ci cumikaay yi ba tey. ndeysaan rëg-rëg mi ngi def ay 100 mètres rëg-rëg a ngi wane boppam nee pare na ndeysaan il dégage la forme la confiance nee na ko kaay waxtu bi jot na. xool leen forme bi xool leen la forme fisik dafa mel ni ki dafa yokk poids bu baax a baax a baax. c'est la bataille mystique entre ces deux ñoom ñaar ñu ngi ci biir géew bi rëg-rëg mi ngi yor benn sengoor di wër ci cumikaayu guy gi lay wër fi guy gi teg ay cumikaayam fa la ko waralee guy gi génn si ginnaaw saako yi abal ko foofu yëpp xajal ko foofu yëpp Reug Reug yor na benn layu guy gi taalal na ko ay loxoom ëpp na ko ko ñetti yoon ay laay la la la guy gi wóolu boppam guy gi très confiant waaw guy gi loolu loolu loolu jaaxalu ko tiitalu ko ragalu ko nee na man tiituma loolu ragaluma loolu booy xool cumikaay yi bariwul ci biir géew bi booy xool cumikaay yi bariwul ci biir géew bi xool leen Reug Reug man de forme bi mu yor moo ma jaaxal forme bi mu yor moo jaaxal ñépp forme bi mu yor moo jaaxal ñépp Reug Reug nee na pare na guy gi ba tey mi ngi sol faaru mbaamam di sotteekoo ay butéelam guy gi ngi noonu moom moom mujjee dugg ci biir géew bi eh, Reug Reug fëgg na ko ay bant guy gi nee na ko dóor aatal samay nopp ma dégg guy gi loolu wóorul de kii muy def dara wóoru ci bàyyi koog yëfam nga jël sa yëf ku ne dem ak yëfam ku ne dem ak yëfam bataay mystique sa ñu nekk guy gi ba tey mi ngi sol faaru mbaamam arbitre mi ñëw na wax ak moom ndeysaan pour daane combat bi mu waree commencé yàgg na parce que combat spécial bëre nañ ko bu yàgg mais préparation mystique bi moo yàgg guy gée ngi noonu naan na ci benn bidon bidon bi am na ndox mu jaune Diouf wax ak guy gi na lum koy jox mu koy mbëkk jox mu seqoo guy gi ngi noonu di dem ci rëg-rëg ay waay ndeysaan ndeysaan làmb jaa noonu waay ñu ngi raayaat rëg GFM Entertainment Group Mao Cissé félicitations pour l'organisation et du courage pour la suite ndeysaan rëg rëg taxaw na wala ginnaaw daa mel ni position lay wut ee eh, bu fi ñëw ah, a bourge wala goog oh, le couple heureux est là Bourguel et Fatim da baax ndeysaan arbitre bi mi ngi wax ak ñoom ci règlement bi rëg-rëg moo nekk nii waaw guy gi gañe na ko si tirage bi guy gi gañe na ko si tirage bi ndeysaan 19 heures ñaata 19 heures 41 minutes 19 heures 41 minutes ndeysaan ay waay waay waay waay cey li may yëg guy gee ngi jat guy gee ngi jat guy gee ngi jat ay eh waay jat bi ñëwati na rëg-rëg yor na poftan jàkkaarloog moom dóor na poftan bi guy gi mi ngi koy sangoo guy gee ngi jat rëg-rëg mi ngi poftan bi ci ginnaawam guy gee ngi jat ay eh waay guy gee ngi jat nee na jóg leen nee na leen jeex na jóg jeex na. ay ah, waay guy gi jat na waay ngay luuma ngi wax ak moom. mi ngi wax moom ngay mooy wax ak moom. son entraîneur. am na lum ko jox. am na lum ko jox. ngay luum mi ngi wax aat ak moom. bataille psychologique. bataille psychologique la. guy gi pare na jat na ba pare. am na benn fas jéggi na ko dugal na ko si diggante tànk yi waaw si diggante tànk bi loolu tojal la bu ar bi sifflé da kay dagg rëg taxaw na moo jàkkaarloog ñun avertissement pour guy gi dafa arrière oon génn saaku yi ar bi sifflé na guy gi rëg 20 février 2022 GFM Entertainment Group Mao Cissé félicitations arbitre siffle na 19 heures presque 44 minutes Reug Reug nee na tekk Gouye Gui nee na tekk ñoom ñaar ku nekk nee nga tekk ku nekk pied gauche booy xool Reug Reug dafa jël volume dafa yokk pois guy gi taalal na ko loxo gauche bi jiital tànk gauche ngem boo ngem bu jaune xaw ma bu vert mais guy gi booy xool li mu takk ci ay morceau yu verte dafa bëri ñaari loxo yëpp am na morceau yu vert guy gi mi ngi jàkkaarloog moom di wax ak moom rëg-rëg mi ngi taxaw fee di léewtoo arbitre baa ngi wax ak moom ñoom ñaar ar bi nee na aca aca aca aca waay aca aca aca aca rëg-rëg mi ngi taxaw fi mu taxaw xam na ne ku am expérience lay bëreel moo dax il faut mu ànd ak teg ànd ak patience déglu ko guy gi fi mu taxaw la taxaw tàllal loxo bi di nga xool rëg-rëg nee na teg rëg-rëg fi mu taxaw la taxaw sëriñ yaa ngi ñaan yeew a ngi yeew Reug Reug mi ngi leew tool boppam guy gi taxaw na fi mu taxaw avertissement dana amaat guy gi de li mu jël ci temps waaw arbitre bi day wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom nee leen su ma ñëwaatee naa leen avertir avertissement verbal avertissement verbal ndeysaan arène nationale 20 février 2022 rëg-rëg en face moom moo gën a ñuul mais rëg-rëg tey dafa gën a ñàng arbitre arrêté na avertissement avertissement pour rëg-rëg pour guy gi guy gi am na ñaari avertissement arbitre sifflé na waat arbitre guy gi ak Reug Reug Reug ñaari aver guy gi ñaari avertissement Reug Reug lan lay xaar guy gi mel na ne lu def flexion sigi sigiwaat ba tey du ko ay jooy la koy àggale fan yaadi dabbaxan fan muqi daadi dabaxat rek jooy. da ngay di jooy ba ne ko ba ne ko bu koy dabaxat noonu rek. kañ lay yegg. Ah, moom li mu koy li mu koy waxee sax du noonu. non bis bu daanoo dina ko àggal. jàpp ko comédien waaye mi ngi teg ay pas ci jéego di waaw dañ ko jàppee comédien. waaye la ci communication waaye nekkul comédien ci biir. mbër la daan tey jeu technique la daan. mbër la de ma dem. guy gi nee na ko kaay. guy gi nee na ko kaay. guy gi dafay dox ci maayin bi xoolal ñoom ñaar ñu ngi wax de guy gi de mi ngay wax ak moom xanaa doo ko jàppee nii lii moom ah xanaa doo ko jàppee nii avertissement encore lii moom ñemewu leen ko arbitre yaa ngi gisee seen biir lii de ñemewu leen ko barki sëñ bi ñemewu leen ko wallaay ñemewu leen lii. ñemewuñ lii de ñemewuñ ko ne. déedéet ñeme wuñ ko de. li wax lépp. laa ilaha illallah. et la. ak guy gi. ak rëg-rëg. rëg na. stratégie la woon. rëg-rëg dem na fekk ji guy gi. stratégie la woon. rëg-rëg sànni na mi ngi xeex. rëg-rëg jokkaas na. ñuy xeex ci kaw. door mu daanu attention. wala jàppante damante ay baaraam. arbitre sëgal. arbitre sugal. ee eh, eh, door mu daanu guy gi dóor na si bopp bi door dóor attention attention liy xeeñ attention liy xeeñ dóor guy gi Reug Reug nee na ko woon nga xeex jàppante nañu ñoom ñaar bëree mbapat bëree mbapat guy gi bal na ko bal na ko guy gi bal na ko de guy gi bal na ko guy gee gi door ay uppercut guy gi tee ngaa bëre guy gi da ngay bëre daan na ko rek rek daan ko waxoon naa la tee ngaa bëre waxoon naa la tee ngaa bëre danga topp xeex bi mu caxabal la daan la danga nga topp caxabal bi guy gi danga nga topp caxabal bi danga topp xeex bi danga topp xeex bi dafa topp xeex bi da topp xeex bi da topp xeex bi mbokk yi gis ngeen mi ngi noonu l'enfant de Thiaroye le fils de Thiaroye il l'a terrassé mais guy gi dama gis ne guy gi dafa topp xeex bi Reug Reug da nax ñu dem ñu dem guy gi ba tey mi ngi toog guy gi ba tey mi ngi toog fi ma nekkoon guy gi ba tey mi ngi toog ndeysaan est-ce que amul lu koy metti est-ce que amul lu koy metti est-ce que amul lu koy metti amul lu koy metti guy gi ba nga toog mu toog rek ci digg géew bi est-ce que amul lu koy metti tànk bay metti tànk bay metti ndeysaan tànk bi mooy metti guy gi s'est blessé tànk bi mooy metti il s'est blessé rek rek mi ngi noonu mi ngi continuer def ay cumikaayam continuer di def ay jumikaayam jumikaay après combat jumikaay après lay def ndeysaan il sera un grand champion dans l'arène. Il sera un grand champion. Il ne badine pas. Il ne triche pas. foowul kaful. ndeysaan kookooy rëg-rëg. kookooy kookooy il sera ndeysaan. waa kër guy gée gi noonu ñu ngi wax ak guy gi ak seen coach ndeysaan o oh, ñu ngi jooy ndeysaan ñu ngi ndeysaan guy gee ngi noonu di génn. lan moo la dal ci tànk. lan moo la dal ci tànk. damaa gaañ damaa gaañ. avant combat bi wala. avant combat bi. ah. nanu mën a bëre combat bi lan moo tax nga ñëw bëre. lan moo tax nga ñëw bëre. walaay nanu mën a bëre.